برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم مبقي السلام عليكم ورحمة الله لنيو بين يون جتاي بو تيد بي جتاي بي نيتيلي جتاي لا سي تيم بي واي ليب يينكو سوكي وون نك في سي دارا جي لا وقتان وي جودو وون يينا ني سانتون وقتان وي président tudd na ko léegi ñu defoon ko biñ ko defee mel na ni li arab yi di wax français yi itam sax di ko wax daanaka làkk yu bëri ñoo koy wax a alchahiyatu tatadaafu maa bidi tanaawuli taam l'appétit vient en mangeant nit ñi puusaat ne dañ ko defaat man itam suma appétit yokk ci gëstu yi ma doon def yokkaat gëstu bi ñu def ko Kaolack ci stade Lamine Gueye waaye am ci ay parti ci ay lettre yoo xam ne nuñ koon a liir ndax euh, yàggaay yi jotaay tey nag du ko yàggal waaye dañuy romb tuuti rek ci résumé d'abord la ñuy waxoon mhm. romb tuuti ci loo xam ne yegg si wuñ ci woon ci jotaay yi passé Euh, li ci des nag ñu dig leen ne balaa yàgg incha dañoo nekk ci yoonu tukki waaye bu ñu ñibbisee danañu lëlu wala ñuy wax ko ci jargon tasawuf danañu xalwa bind ko incha allah ci français ak arabe delloo leen ko. barakallah dig nañ leen loolu. yal ko yàlla motal yal na ko yàlla motal jërëjëf. ñu ngi leen di gërëm wax dëgg yàlla ci jotaay bi da ñi may chance rek li ñuy wax nii. yéen ñu féete ndaw sidna suñuy suñu ma doom suma jarbaat suma xarit ñaar yëpp am na yéen ñu féete ndaw xëy na itam yéen ñi ëpp jotu gëstu yéen ñu gën a jot ci bagage yu bees yi galgal yu bees yi yéen ñi ci gën a jekku daanaka ku ci nekk ci yéen rek mënoon na ko def ci anam gu rafet ñun ñi ñëw rek bokku ci ñi encadré bu ñu amé document bu ñu leen di yokkal ñu yokal leen ko waye da ngeen a bugg rek né li ñi wax né magum julit mom du retraité daf cey nek rek ndax gannaaw suñu baye ak suñu yaay ba légui ñi nga ca ñu ñun duñu am droit wu ne suñuy rak man nañ rek nañ leen ko baye léeg-léeg rek ñu fekk leen ci géew gi euh, kontaan nañ lool nag wax dëgg yàlla ci si daali euh, introduction bi yëngal na ci ñun yu bari yu xóotitim ak mbokk yu baax yi nga xam ne fekk nañ leen ci thème bi nag bi ma ko traité ci li passé ci résumé bu gaaw dama wax ne ku mel ni Mawlana Cheikh al Islam li mu làmboo ci xam-xam ndax moo ne jaam bi dox na ba tasee jëmmi xam-xam ja mhm. fa jaahu l iznu bi duni wahmi wal abdu qad laqiya ayna ilmi wa jaahu l iznu bi duni wahmi jàm bi dox na ba taseeg jëmmi xam-xam ja mu jox ko ndigal joxe xam-xam tasaare ko ndigal lu wéer loo xam ne duñ ko nattable kon ku fees dell la xam-xam ku nekk xam na ne raw ci sa jamono mënoo toog ci vingtième siècle boobu te say baaraam say basamaat say empreinte du ca fis kooku nga xam ne itam yàlla def na lu nit ñàkk-ñàkk baatin soo gisee jëmmi ko yàlla moolee rek boo ko xoolee danga xam ne kii moom dara la jëmm ji rek charisme bi ci mom rek boko xolé xamni ki mbir la radiyallahu taala radiyallahu an kon kooku itim munu fe rombu rek dem ñu nan fum jaaroon duñ gis ben jeexit yàlla defit muy khalifatu sayyidi Ahmad tijani so résumé nga ne xalifa yonent bi bo résumé nga ne wutu yàlla ci déngëréem bi ustaz Ali wax nako legi ku mel nonu yàlla da fay def ay tejeliyatam ci souf nit ñi dañ koy bëgg dañ koy fonku yàlla ko bëggee noonu dafa wax ci xadiisul xudsi ci hadith bo xamne muslim moko solo yéen a koy gis non ci écran bi ne yàlla su bëgge ab jamam da fay def ben déclaration ci malal ala ni jibril yàlla dafa bëgg jamam diw jibril na nga ma jàppale ci mbëggel bi waaw dugg fa yuhibbuhu jibril jibril daal di koy fonk moom itam jibril na moom mooy patron yi gars yi ca kaw jibril moom itam dafay convoqué beneen réunion o malaaka yi ci asamaan ne leen yàlla dafa bëgg jaam bii yéen it na ko bëgg su ko waamalul ala bëggee rek dafay roogaat diri ay sembaanam ci kaw suuf nit ñi itam daal di bëgg jaam boobu jaam boobu mooy Mawlana Cheikh al Islam nga xam ne mbëggeelam moo tax ngeen teew fii gannaaw moo mooy jëmm xam-xam mooy jëmm joo xam ne itam ku ko gis bëgg ko te yàlla nam mu ci yow texe danga nga ko bëgg yàlla def ci moom siiwte goo xam ne turam yegg na fu nekk ci àdduna fu lislaam yegg tey fuy suuf ci kaw su àdduna lislaam yegg na fa fu lislaam yegg tariqa tijaaniya yegg na fa waaye fu tariqa tijaaniya yegg faydaan bi yegg na fa te noonu la ko waxe woon ba fayda bi di door c'est pas évident nga door rek nit lii dafay yegg mhm. soo sësu ci ndigal wax loowuñ la boo ko waxee rek boo otut da nga am defet ci biir parcours bi mhm. waaye ku ko gis rek bëgg jaam bi ku yàlla na mu ceew njub boo gisee jàmm boobu bëgg ko moom lay wax ci béyt bi nga xam ne yéen a ngi janoog moom wala abduza bu lii bi shuhratin xashi min makri rabbihi li zaaka yaxtashi mu ne jaam bi yàlla daf ko bëgg jaam bi yàlla daf ko nattoo siw siwte gi yegg na ci daraja boo xam ne moom sax day ragal leneen laxasu ci waxin la ndax itim lu leen yàlla may may rek toujours ñu ngi toog ci maqaamab al ubudiya mooy cër bi gën a rëy ci ñoom waaye du tey nag danañ wax may yàlla yooyu min baabi shukr loolu itam mooy loolu yàlla jox ko nga xam ne charisme lañ koy wax ci seen seen làkk yéen universitaires yi waaye mooy jaam yàlla yi mooy xadis boobu nga xam ne moom la yonent bi doon feddali ci jibril ak waa mën laa laala mu ma ko ci beneen bindam bindam li moom ngeen janoon bindam loxoom bi <laughs> mu bind ko Omar bun Malik di ko wax ne dafa mos a jóg jóge Kaolack di ñëw dakaar ne ko maa ngi dem dakaar wax na ko fa lu bari ci wàllu àddiyee joo xam ne yónnee na ko ko waaye li ci intéressé suma tem mooy wa ma raaytu illa karamatan min kulli fajirin wa mahabatan fi qulubi muminihim wa kaafirihim wallahu gaalibun ala amrihi yoon wi gisuma lu dul karaama ay teraanga yu jóge ci yàlla ci moykati yàlla yi sax ku ma tasee rek nga ne gonga lu ma bugg nga def ko cofeel ci xolu mboolem ku ma tasee moo xam da ngaa gëm yàlla moo xam sax da ngaa weddi yàlla bu ma yegsee rek bu ma xoolee lu ma bëgg nga nga def ko maa ngi dellu toujours rek ci ne bëgg a wax toujours rek ne kooku nag mënut a toog ci vingtième siècle boobu vingtième siècle bokk ci période bi gën a lëj ci àddina am na ay politiciens yuy wax ne dafa mel ni àddina bi dafa nekkoon ci benn chantier ñëpp d'accord ci ne nañ ko toj tabaxat ko ndax ñaari guerre mondiale nekk ci benn jamono ci benn période boobu rek lañ ko gis yàlla buñ gisaat guerre mondiale chantier bu njàng boobu nag kii di Mawlana Cheikh al Islam indi njub indi ngëneel indi teraanga ba léegi ci préambule bi laa nekk maa ngi wax ne fokk mu def ci ay loxoom fokk ñu ràññee ko ci te suñ ko ràññee il faut politiciens yi soxla liggéeyam waaye njëkk politiciens yi di ko soxla njëkk diplomate yi di ko soxla fekk ne lislaam moo njëkk a soxla liggéeyam boobu ndax ndigalal jottali la am ci yàlla subhanahu wa taala mi ngi nettali benn lettre boo xam ne daf ko bind ah, magam alxaaji Mohamed Zeynab ci ajam gu njëkk la ne ko man daal maa ngi gërëm sama baay alxaaji Abdoulaye lépp lu ñuy wax ci wolof lu ji njaaga mooy njaag amul benn borom xam-xam buñ fi tudd lu dul bu ma taseeg moom rek mooy jëriñ su ma duggee ci jumaa ji nit ñi dañuy rëj rëj rëjloo ku ci nekk ak tur bi nga xam ne moom lay ooye ñii naan yaa sultaan ñii naan yaa cheikh xam nga ku nekk ak li nga gis ci moom Mawlana Cheikh al Islam comme yónnent bi nga xam ne moom la doon ñaari tànk la taxawee tànk boo xam ne temporel la ak beneen tànk boo xam ne spirituel la ñaar yëpp nag di ko lislaam moom leen moo tax ba nee na ci jumaa yu yonent bi su ma duggee léeg-léeg nit xool ko ne ko yaa sultaan ooyee ko comme buur waaye léeg-léeg mu dugg si ci même jàkka am na ñoo xam ne yaa cheikh lañ ko nga gis ñaari tànk yi nga xam ne moom lay doxee ak nit ñi nga xam ne ko wër ku nekk lan lay si ci moom moo waral ba diplomate yi itam dañ koy daal di soxla waaye moom li ko intéressé d'abord d'abord mooy liggéeyal l'islam diplomatie religieuse loolu nag soo jàngatee benn xutba boo xam ne def na ko ci yenn ci gàmmam yi nit mën na ci dellu ci jawaahir rasal dafay wax

dem ba ndeysaan mu mujj fiire Mawlana Cheikh al Islam euh, fiir googu nag mi ngi ko dal ci tukki moo xam ne Cheikh Ibrahim daf ko defoon Soudan dañu ànd ak bàyyi Mawlana Cheikh al Islam Soudan bi ñuy ñëw avion bi bi mu ñëwee ba jub aéroport bi président bi war a ñëw sécurité bi ne avion bi bu ñëwee ci kaw nit ñi lay daan ñu ne comme président bi dana teew il faut ñu yok renforcer sécurité bi ñi renforcer sécurité bi ñi pousse nit ñi ba génn leen aéroport bi comme guerre ay char ak yëpp ñëw bañ génn leen aéroport bi biñ leen génnee aéroport bi ba avion bi dal bi muy laal suuf rek oto yi nga xam ne ñoo yow ñoo jugee salon d'honneur war daw nag jëw si jëwal si avion bi bi ñuy yegg si fekk ne nit ñi daane nañ barrière yi fekk si Mawlana Cheikh al Islam ci buntu avion bi Euh, buuru Sokoto bi mi ngi ci biir muy amadu Bello mi ngi ci biir avion bi boobu moom mamu mi yëpp mi ngi jàpp ne moom la parce que ci wàllu euh, palto jàpp ne ne moo fi ëpp ak palto ndax mooy premier ministre bi mu wàccee gis ne ñi fa teew ñëpp Mawlana Cheikh al Islam moo leen indi président Soudan bi sax indiwuñu leen loolu euh, Jean-Claude Floris mi ngi ko def ci article bu mu bindoon xam nga moom bind na ñaari article njëkk naa bind ci Baye te fekk gisul Baye. bi mu taseeg Baye ne Baye bind naa ci yow Mawlana Cheikh al Islam ne ko waa man de binduma ci yow parce que xamuma la mu dégg code bi. xam ne moom bi muy bind ci Baye gisutoon Baye kon moom xamutoon Baye bi muy bind mu laaj Baye nag ay question yu bëri ci lu nekk door a bind article bi moom ci biir article boobu mi ngi ciy wax ne bi bàyyi wàccee nag bi dawale ko ba mu àgg ci. këram dafa fekk benn benn soudanais dafa jóg ci jabatu ne bàyyi fii Sénégal ëpp ñu waru ñoo ëpp ci yow may waru ñoo ëpp autorité ci yow waru ñoo ëpp sañ-sañ ci yow ndax lu néew néew am nga fi ñaari million yu teg ci ay taalibe ca booba jamono kon di jóg di dem Nigéria wala di toog Sénégal bàyyi ñu ñun waroo ñu ko def xam naa taalib ab majzub la xam naa boo ku ko fekkoon da ngay gis bàyyi di muñ euh, Sardaawna mooy Amadou Bello laajte kii lu muy wax ñu ne ko kii daal nee na bi am na fi ñaari millions yi taalibe lu mu nee kon ni muy demee Nigéria la war di ñëwee ci ñoom mu door a comprendre ne ndeke cheikh bi moo waral mbaboor mu mer ci ba bàyyi sellu ni mu mere bàyyi ne ko kii daal man gisuma waxagu fi nag lu jar mer bu caaxaan jeexee waaw mu dem nag ca la mujj daal noona Mawlana Cheikh al Islam ba am na benn daje incha allah dangeen ngeen jot texte bi ak rapport yeeg numéro référence yeeg yëpp bu soobee yàlla suñ ci taxawee rek waxtaan bi gën a gudd moo tax yu bari dañ koy tëb waaye da ngeen ko jot ñu dajee ne dañuy aaye bàyyi bu mu duggati Nigéria bi ñu waxee ne dañuy aaye Mawlana Cheikh al Islam bu mu duggati Nigéria suñu nijaay Cheikh al Khalifa yàlla fi yàgg te moom la fa fekk fekk bàyyi ne ko fa nijaay Cheikh nee na def na lu nekk pour jot bàyyi pour yëgal ko ne ko gaañaa ngi ut ay pexe pour aaye ko bu mu duggati sa Nigéria ba mu bind benn leetar fexe ba bàyyi jot ci mu ne bi ko bàyyi jotee bàyyi bind ko leetar bu gàtt ne ko dama bëgg nga xam ne man du dox lu dul ci ndigal su ma jógee rek ndigal jóg na dama bëgg nga xam ne itim li gaa yi di wax yenn naafeq yi di wax ak ñenn ñu bëgg rumeur ak agitateur yi li ñuy wax bu leen faale dajale ko yépp nga sànni ko ci sa te xam ne man bu ma jugee rek ndigal jub na wasalaam Ibrahima Niass bu gàtt ah papa Cheikh ay lii daf ko bind ci téere même lettre yi sax daf ko bindaale laa taltafit ila ma يقوله المنافقون والمرجفون أو ما معناه فإني لا أتحرك إلا بإذن duma jóg mukk lu may ci ndigal dama ko riwaaya bi maana su ma jógee rek ndigal mbàkk ba jóg papa Cheikh mu ne ah ñoom comme ñoom xam nañ seen bàyyi xam nañ ne moom bu la ne tëddal nelaw rek tëddal nelaw mu teg wax jooju sardaw na mii ci fi mujj benn euh, ay règlement de compte junte militaire bu nekk Nigéria ñu ñëw wër ndomba këram muy ut pexe ba jël ay yëre jabaram yëre jigéen sol ko ci biir yëre jigéen yooyu ci la ko soldat bi rey xibaar bi ñëw ci bàyyi ñu ne ko eh, rey nañ sàllaw na mi nga xam ne moo la doon utal pexe sa genn wàll taalibe yi mu xaddam yu mag yi ngay dégg Nigéria genn wàll yëpp dugg nañ kaso am na ci ñu dóor am na ci ñu lu nekk def nañ la ki sonaloon sa gars yi rey nañ ko nag bàyyi sujjóot bi mu si génnee du ngeen ma laaj lu ma doon sujjóot ah ñeen ñu bari ne ko ah moom de xam nañ ko sàlloo na noonu sa noon bu mag bi mu ne déedéet bim biñ ne rey nañ ko dama xool suma xol bi gisuma ci benn yéena yéenewuma ko benn safaan loolu ci lay sant yàlla xam nga sam noonu boo xam ne rayal na la day na say taalibe tëj na leen mi ngi doon ut pexe pour aaye la sax yow bu ñëwee ci Nigéria te xam na ne l'islam rek nga fay liggéeyal maanaam mi ngi mel ni dañ ne ko am na ku ut pexe pour arrêter daaw bi loolu li muy garaaw garaaw ñu ne rey nañ waa mu ne yëgu ci xolalam benn ko loolu ci lay sant yàlla loolu yenn la ci ay jotaayam yoo xam ne loolu ba léegi maa ngi ci Cheikh baayam ak influence bi nga xam ne yàlla defal na ko ko ci nit ñi Euh, maa ngi woon ci tukki euh, tukki ñaareelam ci Nigéria waaye euh, benn paragraphe rek laa ci dugal noonu ñaareelu ajam dafa ñëwaat Nigéria ñaareelu ajam la waaye ñetteelu yoonu Nigéria la bi mu ñëwee même bi amoon Soudan nii nga xam ne plus tard la am dafa am moom avion bi dafa amoon problème wàcc mhm. soldats yu anglais yi la fa nekk british yi ne nañ dem parce que fee am na lu fa nar a xew alam bi yëpp nga fa dajee te avion bi dina daanu ci kaw nit ñi british ya muy waa Angleterre yi soldats yu anglais yi ñoo ñëw ànd ak yu Nigéria yi nga xam ne ñu ngi leen formé am na ñu indépendance dàq nit ñi ba génne leen piste bi avion bi dalal dal dalu ci kaw nit ñi mais bi avion bi di dal kenn mënatu téye nit ñi egsi ci buntu avion bi bi avion bi di atterrir rek nit ñi egsi nañ bi ñu egsee nasaara ñooy wax Cheikh Ibrahima moo nettali mi ngi ci Naylul Masaaj mu ne bi may egsee addina bi yépp ñoo ñëw bëgg a dugg ba soldat yi ñoo leen de ñoo ko delloowaat ne na ci biir avion bi ordonné ne nañ tëj avion bi bu kenn dugg parce que xamuñ kii kan la ak lu muy dox si waaye ñii moom buñ buñ duggee ci biir avion bi dañ leen daggate ñoom ñëpp ñu puus leen génne leen négocier ba yóbbu ko ci prince héritier bi këram mu des fa la fanaan bit naa wa ma am kananal nuzul mu ne fanañ fanaan mënuñoo génn kër ga ñi ci biti itam mënuñoo dugg ndax gardien yaa ci biti di leen gàll ci dund lañ fanaan kër ga fees dell gannaaw bu ñu xeexee ba mu yegg mu toog Nigéria fayda bi yaatu tasaaroo fa coow loolu yegg na Gàmbi yegg na ci sous région bi am yoo xam ne bëgg nañ ko sopp ko jaayante min wara ay xijaab gisuñ ko sax fekk sopp nañ ko te yàlla noonu la ñëwee Gaana am fa même cas bugg a wàcc ci période boobu ñëw na ak Accra avion bi nar a daanuwaat ci kaw nit ñi même la xawoon Soudan euh, li amoon Nigéria am na Soudan plus tard après Nigéria loolu moo amaat même scénario moo amat biir Ghana avion bi ñëw mën a tawal ci gaana moom dañoo obligé jox ordre avion bi ne ko demal Tamale génnal dem boori commencé Tamale ak Yende foofu ngay dem Cheikh Ibrahima mooy nettali mu ne bi ñu jubee yende dafa mel ni humanité yëpp dañoo joxante rendez-vous foofu gaa ñëpp tasante fa tasee fa ci période boobu lay wax ne laqantu alaafan walan tuadda ay junne junne nit laa jox kalimatu tawxid laa ilaha illallah la wax rek ay junne junne nit dugg ci lislaam doo ko gis nulle part ci taarix islam yi junneey nit bu tuub rek boo xam ne jógul jugul mënoo ko am donc ci période bi ñuy wax l'islam ak terrorisme ak yu demee noonu ñun am nañ modèle boo xam ne ñeme nañ ko présenté fu nekk ne dugal na ay alaaf ay junne junneey nit yoo xam ne jaase takku xaw ma jaase gëndul mbar ketal takku loolu nag ak euh, li mu liggéey noonu soo koy jàngat ci taarix man nga defé ne xeyna contexte bi nékkone dafa gëna yomb contexte ay waajuram ñu jittone té déwul nonu contexte bi mu nekk sax mo gënoon a jafe ndax fekk na kenn mëna a dékku tuba bi ci arme برهام باء وراء ألف ثم هاء